Salut les amis de eSport TV et de Baba Show. Merci encore Gaël de la confiance renouvelée. Merci de way des likes, merci de way des abonnés, merci également du bail et des commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager des informations. Inbox sénégalais, il fait pour le maintenir. 14 régions du Sénégal hein. ruux-ruuxaat yi gox-goxaat yi Il ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci lalu hôpital yi ci kër yi tëdd feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm ñu ci kaso yi ngeen xam aussi erreur judiciaire ak génne ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñu delluwaat dana suñu borom xar leen daajane fi doo si gars yi ñu on avance ensemble dans la magie de Show et les Sport TV. L'actualité en continu L'actualité marquée par ki nga xam Iliman Gaye du côté de Everton officialisation imminente la moo mais aussi qui dit Neymar mi nga xam ne wax xaw ñagas la daal di wax kii donc ne day avant tout encore beaucoup Sénégalais yi dem leen ci ou nga sport Instagram bu eSport Inter ngeen daal di fay abonné pour donc accompagner mooy donc une chaîne eSport TV avec Baba Show je fais également les plus grands ne donc actualité bi résumé faut ngeen koy di mais également ci TikTok bi di eSport TV 1 gars yi gën a agrandir famille bi partage ko aussi di jot li nga xam ne mooy donc information yi en attendant ñu commencé yeneen format yi waaj a ñëw muy ñoom a ak yeneen yi incha allahu

de d'Europe bi ndax bañ dooree ba léegi ñoom ay match yu am solo def pendant ce temps également li nga donc U19 bu Espagne moom sen joueur yi nga d'origine sénégalaise la ñu muy Assane Diao convoqué nañ ko pour préparation Euro 2019 euh, bi ñu war euh, jouer hein donc mais également ki nga xam Sirène Diao moom nag ken convoqué ko hein. l'attaquant hein, sénégalais d'origine est également en Espagne mon bokk na ci joueur alors que moom Assane Diao moom daal nañ koy a euh, bu hein, Sénégal profité pour petite catégorie bien évidemment pendant ce temps la Squadra Zoura, Zoura, nag ki nga xam donc euh, Zaccagni moo dans les ultimes secondes de prolongation face à la Croatie de Luka Modric un but partout Modric pourtant l'avantage à l'équipe équipe euh, croate. Lata également waa Italie dégaliser euh, dans les arrêts de jeu match boo aux allures de finale la parce que Kenam amul droit à la défaite mais aussi Croatie Mom, ñoom ñoo ci def résultat bu bon bi parce que ils sont éliminés à 90%. Kenak dit le cent de nag di Luka Modric moom lañ mu man of the match mais fi mu Croatie Mom, euh, pour mu gagner le destin en main ay circonstances lay donne, ay calcul lay donne, ci par rapport la victoire ak défaite yenn équipe yi loolu nag gars yi fi mu tax na ma Obrigado. Lucas Modric gars japp jàpp nañu bi mo nar a nekk dernière fois ñu gis sous le maillot de la Croatie même bu fekkene ni dem conférence de presse am na benn journaliste bu ko ñaan na ko s'il te plaît bul dadi baye football ndax man jori yi commenter puis il est le meilleur joueur de l'histoire pendant ce temps nak wa Brésil mom kenn xamatu ndax Brésil lañ wala légui ban équipe lañ wa ah, wala nami bi la wala waaye Brésil dem dal gars yi wane fa daral dal xel moo tax Ronaldinho li mu doon wax naan bàyyi na match Brésil bo xolé ba ci biir biir bi dafa melni dal daal mujjee am deug ki nga xam mooy donc Ronaldo Ronaldinho parce que newoon mom moom dootul seetaan benn match Brésil ki nga xam mooy Neymar dem ñëwoon pour seetaan ko waaye xaw naa ndax mom dem dal euh, décourager lepp gis nañ ko même ba ñi remplacer euh, Vinicius Junior mom il n'a pas compris euh, li nga xam mo tax ñu remplacer Vinicius Junior di wane également Brésil fi mom voilà nekkatul Brésil bi ñu xamoon mais Neymar aussi nee na moom pour moom le facteur X de cette équipe du sax Vinicius mais Rodrigo parce que nee na Vinicius li mu war a def na ko def mais nee na Rodrigo ne moo nar a nekk sa euh, plus ci équipe bu Brésil bi ndax li mu mun a apporter li mu nekk ci moom gisul kenn ko mun a ko apporter Neymar nag euh, avant match bi dañ ko doon interview vingt interview gars yi laaj ko ban joueur moo gën a ñaaw ci joueur yi nga mës bokk ak terrain football ak ñoom mun daal Vinicius la daal di tànn ah di mbalag nee moom. da doon kaañoo ah nee moom daal Vinicius daal mooy nekk jour boo xam la ko doon yi pendant ce nag Barça nag yii di Deco dafa bëgg a recruter Luis Diaz conseil bi ne ñoom ni ko mën a daal di jaay joueur ne nii Barça ne nañ ubbi nañ bunt yi pour waxtaan ci kaaw ki nga xam mooy donc Ilkay Gundogan mais comme je dis encore sport ñoo ko wax jàpp ma ne entité Afrique dina bàyyi Gundogan moo daal di dem parce que monumental monumentale de laisser partir le milieu de terrain allemand lecture de jeu c'est unique Qui nag di Marc Guiu le joueur donc formé à la Masia mon nag ni Chelsea mi nga avancé baax a baax a baax ci dossier am ndax Guiu waa baax ko proposé prolongation de contrat mais on peut léegi tontoogul pendant ce temps nag agent am ak waa Chelsea moom seen mi ngi am Kalonoglu le joueur turc moom nag euh, gars yi di ko doon wax waxu euh, ñii di Bayern loolu moom nañ seen xel dal man projet euh, Inter de ko gëm faa gis sama bopp moo tax daal xalaatuma jóge di côté de l'Inter de Milan fi mu ne nii kay waxum prolongation naam mun naa ko wax waxum jóge Inter moom bu leen ko sax xalaat kii nag di Michael Olise moom waa Bayern Munich ñu ngi insisté avancer baax a baax ci dossier war nañ def nag seen offre officielle ci semaine bi nii wala ndorteelu semaine bi di ñëw pour daal di koy fexe ba mu daal di ñëw ndax léegi seen pré-saison yi commencé ak Olise bokk na ci c'est presque officiel imminent sax ki nga xam mooy donc waa Everton daal di annoncé ñëwu une Ndiaye du côté de l'Angleterre daal di aussi dellu si dit Ndiaye bi nga Marseille 18 millions lañ ko de woon fi 2 millions de plus parce que 18,5 millions la ci waa Everton fay ak bonus pour 1,5 millions il m'a dit nak nag on na proposition mais nak mom dal finalement ni euh, di Wa Everton la dal di jox li nga xam nak nag donc cadeau ne fa la dal di dem ah, loolu nak nek na pour Sénégal yi le bon choix parce que jàppoon nañu à Marseille il ne sait pas lu mënti am dal ce qui veut dire que aujourd'hui dit il va retourner en Angleterre gars c'était les informations qu'on voulait vous donner toujours un plaisir de vous servir woy leen like woy leen abonné on avance ensemble dans la magie de sport TV de Baba Show bu leen dem ci chaîne sport TV bi YouTube bi ak Baba Show YouTube bi Apple def fac Instagram TikTok jaa